mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo seen rajo seen daaray Réseau DTL. division triangle de indi leen ay lenn ci ay baat rek ci émission la vitesse trois morts sur cinq ci sëfoor bi ak weeru koor bi wala sëfoor yi ak weeru koor yi waaye passage passage yi ak sëfoor yi lépp rek indi ay kaaraange ci wàllu weeru koor gi ndax kenn ku nekk xam na ne weeru koor lu paase ñeenti waxtu jàpp ndog di jot ñu baree bari seen yitte day joyal jëm ca kër ya ngir waajal ay ndogo yee ci aju bu ko defee kii dox ak tànkam su moytuwul rek mën naa teqtalu def loolu ñu naan accident su ko defee dootu ndogo ji waaye ñu nekk ci kër ga itam suñ déggee ne diw wala ñu jël téléphone am woote ci kër ga daa ne ndax xam ngeen diw ñu ne waaw rek dañuy daal di sànni ndogo yo foofu jóg dem naa dina tukki na waaye yow mi nga xam ne tam yow ay conducteur bi itam boo jógee di dem naa dama yàkkamte a ndogu ji wala ay nit dugg sa oto naa la gaawal dañoo bëgg a ndogu ji tax nga jóg ko ndiroo xanaa di dawal président bi nga war a am mu manqué ba ci daa am yow dootoo dem waaye ñooñu dootuñu dem waaye yow mu nga caaboole boole la cay tooy lépp yow mi yow mi conducteur bi ci yow lay aju ndax benn néew na nga yóbbu nit yóbboo ba mu àgg mu fay la bari wu ci su loolu amee dootoo dem te ñaare duutu la fay su sa alal yàqoo itam moom bu gaañuwul dara jotu ko bu dee ku baax a mën na la wasu masaw na sëñ bi lii moom yéene wu la ko woon waaye day daal di dem rek këram bàyyi la fa yow nga des ca. ngay ne ci wàllu saak ndax bu police ñëwee ca constat ba ndax duñ la yóbbu ci yoon ndax duñ la yóbbu ci cellule bi te police mën na ko wala gendarmerie mën na ko. loolu yëpp boo ko dee sóoraale rek wax dëgg yàlla lu koor gi tar tar tar tar saa boo jógee di dem foo mën a jëm rek na nga jàpp ne da ngay kondir ndax boo jógee fi jëm Touba Ndog fekk la ci yoon wi itam léegi fu waay nekk taalibe yi seen taxawaay ci weeru koor gi kenn ku nekk xam na ko fu waay nekk léegi ndogu duutu la jafe te it la ngay ñàkk léegi duutu bari kon loolu même ba lu doon jafe ta ngay ñàkk lu bari sax jarul njëkkante ndax sooy dox ba dematoo rek lam lay coûter boo ko dee xalaat lu bare bari doo ko def ndax boo doon dem ba dematoo rek déjà am nga pertement boo xam ne boo ko dee sóoraale yu baree bari du ci dugal. kon daal ñu leen di dénk waaye di njëkk a dénk suñu bopp prudent encore prudent toujours prudent ci jamono yu nekk nag waaye rawatina weeru koor wii nga xam ne ci la ñu nekk fas ci yéene dugg ci bismillahi rahmaani rahim di ñaanal ñëpp ci ñu jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamina benn accident bañ cee am moo xam ku yore jakarta la moo xam ku yore puus puus la moo xam ku yore saret la moo xam ku yore oto la moo xam bu dee oto nag ñu tànn ci ay taxi ay car ay njaga njaay yi ay biis façon oto yëpp ñu xam ne daal bàyyi xel code de la daal moom rek moo war képp ku di su ko defee rek bu neexee yàlla daañu am koor gu woyof tooy koo xam ne zéro accident te itam lu mën a nekk la ndax accident moom ñi koy def buñ ko bàyyee rek accident dootu am waaye liy indi accident itam ñun ñëpp buñ ko bokke bàyyi rek accident du am lu lu indi du chauffeur bi kese rek moom mooy tax accident du am piéton bi daf ci bokk ndax yow mi nga xam ne dangay dox ak sa tànk ñëw ba agsi ci tali bi code de la wax na la noo xam ne noonu nga war a traversé si jégee ko tali bi bu dee da nga koy traversé kon boo egsee ci tali bi taxawal xoolal sa wàllu càmmoñ loolu la code de la sant boo xoolee sa wàllu càmmoñ xool lu sori oto jógewu fa mën nga jéggi dox ay jéego yu dëgër ba ci digg bi waaye bul prolos rek yàlla da ngay taxaw xool sa wàllu di su fekkee foofu itam oto biy ñëw sori na la nga daal di continuer jéggi soo ñëwee ba ci digg bi su oto bii ñëw wàllu di joor gi jege la da ngay taxaw bu boobaa oto bi daf lay romb du am benn problème bu oto yi jeexee rek nga dikk. la ci gëni nag mooy li ko doon wax rek nga jéggee fii mooy passage clouté ñenn ñi naan ko passage piéton nga xam ne buñ la ko mënee woon te yéen a ngi koy gis noonu ci écran bi eh, tali bi dafay am ay dog-dog yoo xam ne dafay weex foo ko gis rek yow mi sa tànk foofu la yoon wax ne na nga fi traversé yow mi yor sa tànk tey dox. boo gisee ligne continue mooy rëdu xoolu weex woowu boo ko gisee itam wax ne la bul ci jaar foofu dañ koy aaye borom oto waaye dañ koy aaye nit surtout nag borom oto boo xam ne da dox ba yàgg nga ne léegi damay dëpp fi ma doon jëm jëmatuma fi damay tourner moo tax ñu interdit foofu demi-tour sur la foo ko gis rek dañ ne la bul dëpp mu ko na dem ale la boo xam ne amul retour su ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel bu ko defee rek bu neexee yàlla safoor bi ak tali bi duñ am benn lu leen bi ak tali benn la ba tey waaye safoor bi ak client bi waaye safoor bi ak moroomam safooram wala safoor yi ak seen moroomi safoor su ko defee kenn ku nekk dafay am li mu bëgg te mooy egg ak jàmm ñi nga yow wàcc ak jàmm xat bañ a damm te loolu moom la daara ji yéene ñëpp moom la daara ji ñaanal ñëpp kilifa gi loolu la leen ñaanal moo tax mu indi yu bees yi initiative yi ndax daara yi tool beeg liggéey bi ci yu mel nii rek lay dox du tàngam lu dara du tàngam lu kenn du tàngam lu fenn bëgg na dem ak dikk bi lépp na tax euh, benn accident bañ am kon nag ñu ñaanal ñëpp koor ak jàmm goo xam ne gédey sedd guyu benn accident bañ am catastrophe yi fu fi waaye mën a jóge rek te dafa jëm naka fas yéene rek xam waxtu wi ngay jóg waaye waxtoo ngay àgg moom danga koy bay ci loxol borom bi doon jóg gi sax borom bi moo ko dogal ba nga mën a jóg waxtu wi kon looy def mooy la ko wax rek loo seen fexe ba ci ak jàmm loo romb mu rafet rek bu yàggee da ngay am da nga bëgg te sun maam ji Sëriñ Fàllu moom jàngaloon nu ko bu yàgg nee na da ngay toog nii ma def ne nikkati te mooy téye sa yaar yoxo bu baax direction bi bul ko téye sa benn loxo te mooy baar bi moom la leen ci mag ñi gën a xam daal di xool sa kanam bu ne yaay yi na nga ne yollu bu ne tacc moom bul werante neel tekk bu ne yaay yi nga ne yollu bu ne tacc nga ne tekk ku la romb ne la fiif ne la maa la man nga ne ko doxal nu dem bu ngeen àndee diir bu taxawee diir rek nga fekk ko fa te lu dul àgg rek àgg ko gën loolu daal lañ leen doon indil ci daara ji ci waajtaayu koor gi eh, ci jële ko ci laawi tees trois morts sur cinq safoor bi ak moromam chauffeur waaye chauffeur bi ak tali bi chauffeur bi ak client yi waaye client bi ak tali bi sareet ci lañ bokk dóoru yi ci lañ bokk bu ko defee ñu ñaanal ñëpp sant ñëpp rek koor ak jàmm ak salaam ci barke alayhi salaatu salaam barke Seexul Xadim loolu daal xam naa bu fekkee amu leen leneen lu ngeen di laaj rek defe naa euh, nu def loolu ñu na waaw bu ko dee càq càq yi macha allah jërëjëf sunu coordonnateur macha allah Alaaji Ibrahima Cissé càq càq yi moom kenn du ñoom. bañuñu leen sunu njaboot ngeen sunuy doom ngeen sunuy rakk ngeen ñi ñu ci mag te di ko dawal bareetut waaye ngeen xam ne code de la bàyyiwul kenn képp koo xam ne da nga nekk ci tali bi te yore machine bu mu mën a doon ne ci kaw tali bi code de la route dafa am lum la sart yum la tëralal mooy nga tënku ci. nañ bàyyi ligne côté droite bi ñuy dépasé te mooy doublé di jëm ci wàllu droite dañ ko bàyyi kenn du dugle oto ci droite dee su dugle sa morom cag-cag ci droite dee su signalé gauche jaadu droite dee su signalé droite di jaadu goos il faut ñu sàmmonte ak code de la route te bàyyi xel yi ñi daw ñu dindi ko wàññi ko rawate na nag ni ñuy jël di def léegi sax maa gis sànq cag-cag boo xam ne trois personnes la yëpp man a kii kay koo war mel ni jël trois personnes tek ci te kenn du leen wax dara wax naa alkaati ma ne lii nag mu naa loo ci man yow fi nga monté fi nga monté bu la rombee diw amul dara loo ko mën a xamee dangay ngay bàyyi rek ku dee perte mën a ko wax nga dëgg de neexu la dégg waaye loolu dong te yéene wuñ leen lu may jàmm ak salaam kon na ngeen xam ne tali bi dañ koo bokk ngeen du suñuy njaboot nu yaakaar leen bëgg nañ ku ci xëy di wutaloo yot bàyyi wala yaay nga mën a yéeg ak jàmm ci kër ga te yóbbaale ko kon nag lay tax doo ko mën a def kenn ku nekk war na ko moytu war koo bàyyi ñu kondir welo yi kondir moto yi kondir pus-pus yi kondir tànk yi kenn ku nekk rek di nekk ci li war a nekk su ko defee rek koor ak jàmm ak salaam lay doon kenn du dem bay waaj a ndogu di ko fa bàyyi yuuxu wuti hôpital te ñaanal luñ ko kenn eh, di leen sant leen gërëm rek wa tabaarakallah wasalaatu wasalaam ala rasulillah jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf ba beneen yoon